ربا وادي وارناني واكرمني ربا رديت عن المولى تعالى الذي ربا daaira jasbul murid di daaira bu lëkkale sët ak sëtaatu maam cheikh ibrahima fall lamp babil muridina ak njabootuk maam saaliu fall daaru xafoor ak taalibe yi ginnaaw daara ju mag ji nga xam ne taxawal nañu ko ci jannatul maxwa muy daara joo xam ne ay tuut tànk yu takk lool ñoo fa nekk muy daara maam cheikh ibrahima fall lamp babil muridina ñu leen fay jàngal alquraanul karim téereb borom bi subhaanahu wa waaye di leen yar ci diine njàngaleem ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim ak tarbiyek maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridina daara ji nga xam ne at mu nekk ay résultats yu am solo la ñuy def ay ndongo yu takku di fa mokkal téere borom bi subhaanahu wa taala alxemes juróom-ñaari fan ci weeru safar atum 2023 ji ñu daldi amal ab ziyaar ci barabu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridina mi ñu dubbee daara ji ñoom mbooleem ndongo yooyu le ñu ànd ak seen jëwrin Serigne Modou Fall mi jiite daaira Jasbul Murit ak lenn ci kilifa yi ci bi 10 heures di jot lañu daldi di ci bërëb bi ngir yëkkati turu yàlla def convoi bu mag daal di wutali foofe ca barabu maam Cheikh Ibrahima Fall ca penkub juma joojile abdan muratilan gannaaw ba ñu yeggee ci bërëb boobule ñu jot faa wàcce ay limi kaamili alxuraanul karim yu takk lool jébbal ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina ñaanal ko ci jëf ji lenn taxul ñu jëf ko lu dul siyaare ko tedd ki maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne dundam gépp da ko seeyal ci liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim daayira Jasbul Murid nekk daayira boo xam ne liggéeyam bépp mooy yar tuut tànk yi ci diine di leen jàngal njàngaleem ko tedd ki Serigne Touba ak tarbiya ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina mu nekk daa daayira boo xam ne ay mébét yu am solo loolu la ñu mébét ci daara maam Cheikh Ibrahima Fall ji nekkee ci janatul max maxwa seen bëgg-bëgg ci daara ji mooy mu nekk daara ju mucc ayib lool ba ëllëg mu mën a jël ay junni junni ndongo te mbooleem ndongo ya fay jànge ñoo leen yore waral seen lépp gannaaw bi Serigne Modou Fall mu Serigne Amdi Yaasin Fall mu Cherif Assane Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall tey jëwrinu daaira bii di Jazbul Murit jot naa yëkkati ay kàddu di dellu si waat ci solos bi la ziar. daara ji nga xam ne mooy daara yi maam Cheikh Ibrahima Fall donc yi nga gis suñu gannaaw euh, ñoom ñoo ñëw tey ngir siyaar si maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina loolu nag di mbégte mu kawe kawe kawe ndax barab su fekkee ne ngeen bokk ci ñu koy jiite di ko di ko di ca liggéey ñu dem ba dong yi am ñu ci wàcc alxuraan am ñu ci commencé mokkal ñu jël xalaat bu rafet boo xam ne ni mooy nañ ñëw delloo si njëkkal ki nga xam ne mooy murit bu mag ba muy maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina ñëw ziyaare si ko jàng alxuraan sikkar eh, def ay bernde ñaanal ko loolu yaakaar naa eh, képp ku bëgg lu baax ku ne saxool dana ci sedd. bu weeru safar wi teeroo ba am bis bu dee si ñu àndandoo ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall képp. Euh, lépp nag mu commencé ci daayira bi nga xam ne mooy daayira Jazbul Murid mooy daayira bi nga xam ne moo lëkkale mboolem sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp kon seen taxawaay ci nga xam ne liñ buñ jugee liñ njëkk a def rek mooy fexe defar ndaw yi mu samp daara alxuraan yar xale yi ba bu ëllëgee buñ desee yoon wi duñ ko fooyee duñ ko yàq duñ ko sàggane euh, ziar la boo xam ne dañoo bëgg mu at mu jot ñu di ko gën a def muy gën a yaatu ndax euh, njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall rawatina na daara yi maam Cheikh yi dong yëpp ñëw di siyaare si maam Cheikh Ibrahima Fall loolu yaakaar naa lu rafet la yaakaar naa lu am am solo la ndax loo xam ne ba nga koy commencé gone yi ba si miim lañ doon commencé ñaari at ci ginnaaw rek am gone yoo xam ne ñu ngi commencé mokkal am ñoo xam ni wàcc nañ am ñoo xam ne ñu commencé miin loolu ak sant yàlla mënu koo passé. ñu ngi soññee bu baax ñu ngi seqal liggéey bi ñëpp moo xam ay sëti maam Cheikh Ibrahima moo xam ay taalibe lañ wala ay soppe ndax daayira bu jës bu murit bi daal lëkkale mboolem sëti maam Cheikh yi ànd koog sëti maam Saliou Fall yi ak taalibe yi ak soppe yi ñoom ñëpp ñu ngi si ndax sëñ Saliou damaa déggoon mu wax ne boo fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal ma ne kon léegi da ngay déggee na lu yàlla yaatal kenn wul koo xatal kon lii yëfi maam Cheikh Ibrahima Fall am di moo Modou Mbend eh, ci xilaafa sëñ Cheikh jëmm lañ ko sosoon di ko doxal di ci def ay suñu addi ak suñu ba ñu agsee fii sëñ Amdi tamit jël programme lu baree bari loo xam ne aju ci yoon wi di ko teg suñu loxo bisu bisu zikrullahi bi bisu xasida yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon loolu loolu ñu ngi ci soññ ñëpp ñu gën a ñëw jàppaat ci liggéey bi gën a jàppaat ci daara ji gën a jàppaat bu baax a baax a baax tamit ci daayira bi nga xam ne mooy daayira maam Cheikh Ibrahima Fall